ci biir loolu itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi ndax li jiitu ñun ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Tuubaa moom bu ci suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu ci suñu des te sëriñ bi foofu la nekk bu suñu suñu bakkan des itam ndax saxaaba yi kat seen alal tara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu sëriñ Tuubaa dara gënu koo fa for ci ñun kon bu ci suñu bakkan doon des jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëggu ci ñun man de ndigalu Sëriñ Tuubaa lii lépp lu naaru dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama bakkan te xam naa ne lépp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor na wóor nañu ne ku ko defee positif te dara ñu gisal nekku ca Sëriñ Tuubaa dana la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te te te sëñ bi bëggee ko noonu it booy fàdd di tàbbee jana kon nag loolu bu ci kenn am tiitaange